salaamaaleykum gars yi baaxoo di seetaan uh, Bass Media TV waa tey nag uh, dañoo ñëw génn feneen foo xamante ni si uh, daawuñ fi faral di génn muy jàngale lu ñuy jàngale mooy monter lan la ñuy monter mooy li ëpp wala ñi ëpp application bi ñuy utiliser wala logiciel bi ñuy utiliser ci montage ci àdduna bi mooy Adobe Premiere Pro wala Final Cut wala li nga xamante si mooy filmora wala yeneen yu xeetoog yooyu power directeur ak yëpp tey nag biñ ci fas yéenee wax mooy Adobe première Pro lañ leen fas yéenee indil wax leen nan lañ koy ubbee boo ko ubbee yan ñoo ci nekk ci xeetu outil maanaam ay jëm jumtukaay waaw tutoriel bi nag rek ñooy def ci olof waaw bari na ay tutoriel yu nekk ci internet bi mais français la ak anglais ak ay espagnol ak langue yooyu noonu donc ñun dañ ko fas yéene def ci olof leeral leen dañ ko mu gën a leer incha allah donc ni ñuy def mooy téléchargé nañ ko am nañ ko ba pare dañuy ñëw ubbi moo nekk nii boo cliqué nga gis mu ubbi PR mooy Premiere Pro ñun ñu ngi yor 2020 bi voilà mu ubbeeku ñu xaar mu téléchargé wu voilà bu ubbeekoo lii la lay wan accueil bi accueil bi léegi yow da ngay ñëw boo fekkee da ngay bees ci Adobe Premiere Photo doo fi gis lii yëpp donc ñun yàgg nañ koo utiliser moo tax daanaka ñu gis si lii nii donc ñun ñi nga xamante ni si dañ koy doog a télécharger lan moo ñu si intéressé mooy nouveau projet nouveau projet moom la ñuy bës daat koy bàyyi mu ubbeeku nouveau projet ñu daal di modifier tour bi parce que sans titre lay ñëwee lan lañ si def. damay def tuto ci olof ci wolof tito ci wolof voilà ma def ok mu ubbeeku léegi maa ngi nii ci interface ado première Premiere donc maa ngi nii ci Adobe Premiere poro li nga xamante ni si mooy fichier moo nekk nii édition buñ commencé monté dinaa leen wan lan moo fiy njariñam ak lan la fiy def ak yooyu noonu yaa ngi ba élément séquence yëpp marque image image bi yeeg yëpp dinaa leen wan incha allah bu ci nekk lan mooy njëriñam donc bu fekkee da ngay doog a bees ci Adobe Premiere Pro du tëb tëb ñëw fi nga xamante ne si mooy montage day ñëw fi nga xam ne mooy formation. léegi formation bi lan moo tax waa Adobe def ko mooy dañoo bëgg a jàngal seeni client parce que ñoom logiciel bi dañ koy jaay mayewuñ ko da ngay jënd licence chaque année nga renouveler ko donc ñun dañ koo am am nañ ko ko bëgg a jënd mën ngaa dem jënd ko mais am nañ karaag bi ñun moom la ñuy utiliser lu ëpp voilà moo nekk nii tutoriel bi moo nekk nii mais en français la moo yi nekk ci internet rek dèjà ñooyam donc looloo tax ñun ñu indi leen euh, tutoriel ci olof boo jógee ci li nga xamante ne si mooy formation yaa ngi ñëw ci assemblage maanaam fi ñuy boolee image yi nga xam ne wala média wala audio yi wala vidéo yi nga filmé ji woon moo xam kilib la moo xam théâtre la moo xam lu mënti doon voilà fii ngay ñëw teg ko fi assemblé ko ba mu neex la ba mu baax nga door a ñëw fi nga xamante ne si mooy montage boo ñëwee montage aussi Euh, ñun moom daanaka dañuy ñëw rek dugg montage parce que min nañ ko yàgg nañ cee monté boo ñëwee montage lu mu lay wan mooy écran bi di preview maanaam moom ngay xoolee ba pare door a ci ci timeline lan mooy timeline dinañ leen ko leeralal incha allah écran bi aussi ngeen di gis nii moom it mooy moniteur moom ngay xoole li ngay liggéey waaw li ngay liggéey fi nga koy xoolee donc fii yaa gis ñu def projet Tito fii la suñuy élément di nekk yi nga xamante ne si moom la ñuy exporter après fii lañ koy teg pour mën a jël benn par benn di ko teg ci preview bi di monter li ñuy monter voilà doo ko glisser fii ci timeline bi instant bi timeline bi dafa vide moo tax mu defal la déposer le média ici pour créer la séquence nan la ñuy créer séquence dañ leen koy leeralal incha allah ci fii si ngay ñëw ñëw nouveau dem séquence donc lii dafa gudd boo xoolee benn. muy fichier ñaar muy li nga xamante ne si mooy nouveau ñett mooy séquence xam nga li dafa gudd am na loo xamante ne si ado proposé na ko muy raccourci mooy foo gën a gaaw yoon bu gàtt mooy lan da ngay bàyyi foofu def contrôle N bu fekkee yàgg ngaa utiliser machine contrôle L mooy fi nga xamante ni si mooy bidon bi féete gauche ci suufa suuf bidon bi mujj. ñu def ci CTRL loolu mooy contrôle voilà boo ko bësee da nga koy appuyer teg ci N bidon N boo ko bësee mu indi la nouvelle séquence voilà boo la ubbilee nouvelle séquence moo nekk nii ngeen di gis nouvelle séquence léegi da lay indil HDV ñu jël HDV mille quatre vingt dire mooy Full HD boo xamante ni si vingt cinq images par seconde la nga daal di modifier li nga xamante si mooy séquence bi dañuy defaat ba tey ci too euh, ci wolof voilà ci wolof moom lañ tuddee woon bale nga doo fi laalaat dara boo defee loolu doo def dara lu dul ok automatiquement boo ko defee da ngay gis ci sa timeline am nga fi fii la audio bi nekk fii la vidéo di nekk donc am nga fi disposé nga fi benn ñaar ñett place li nga xamante ne si mooy audio di son am nga fi tamit benn ñaar ñett place vidéo yooyu yëpp mën nga koo yokk nga xam ne fii ngay def sa vidéo fii ngay def say PC PC tamit dinañ leen woon mooy lan fii ngay def sa logo yëpp ba nga xamante ne si du baare moroom ji doo xayaaxal dara donc fii nga gisaat ñu teg fi souris bi di ko yëngal foofu ngay exporter li nga importer li nga xamante ni si mooy say fichier yi nga téléchargé wala yi nga tourné ba pare wala yi nga jële fenn muy rush boo ko indee fii nan nga koy indee mooy da def double clic mu indi la sa bureau bi nga xamante ni si fi la say élément nekk wala li ngay monté donc dañuy dem fi nga xamante ni si mooy suñu dossier jël suñu générique comme ça wan leen générique Bass Media boo ko cliquer dangay def ouvrir voilà mu ubbeeku nga appuyer ci foncé glisser indi ko ci fi nga xamante ni si mooy preview voilà mu ubbeeku ni yaa ngi gis moo nekk nii léegi dañ koy jël moom it indi ko ci fi nga xamante ni mooy séquence te dañ koy jël damay bañ ojo bi déranger leen xaaral ma jël lii nga gase teg léegi lii su ma ko defee lii la may indil automatiquement su ma ko indilee du ma bayee fii moo nekk du ma ko bàyyi fii laay bës maanaam du ma bës fii fii laay bës muy modifier les réglages d'une séquence voilà mu daal di ubbeeku yaa ngi gis ni dafa ndaw xam nga lii dafa ndaw parce que six la nan laay def ba mu rëy ba damay ñëw fii fii ma teg loxo bi appuyer ci foncer glisser maanaam puus ko yóbbu loxo càmmooñ sama loxo càmmooñ su ma toogee jàkkaarloog machine bi mu ubbeetu ba gën a yaatu bu ubbeekoo nii ba gën a yaatu voilà nga dawal curseur bi yaa ngi gis nii mu ngi nii voilà logo Bass Media bi moo nekk nii voilà yaa ngi gis léegi li ci des mooy vidéo bi kase laa wàcce wàcce wu ma bi lan moo tax lool lii nii mooy vidéo bi kase yaa ngi gis fait glisser la vidéo uniquement mooy wàcceel vidéo bi moom kase fii ngay gis nit ci suuf mooy fait glisser lojo uniquement su ma ko jëlee glisser ko day ñëw moom it daal di tolloog li nga xamante ni si mooy sama vidéo donc ñoom ñaar ñoo ñëwandoo ci projet bi waaye ñëwandoo ci séquence bi kon mën naa koo déplacer à tout moment moom ojo bi bàyyi fi vidéo bi mën naa déplacer vidéo bi bàyyi fi ojo bi yaa gis parce que dama leen a séparer indi voilà donc su ma jëlee ñoom ñaar ma bëgg leen a boole indi nan laa koy defee mooy damay bës ci digg vidéo bi fii glissé yaa ngi gis ñoom ñaar ñoo ànd boo déplacé morom ji rek bi ci des day dem laa nga teg xam naa mbokk yi damay yemale foofu tutoriel bi ba fan yi incha allah ñu àggale li nga xamante ne si mooy liggéey bi ci nan lañuy daggee nañ la ñuy nañ la ñuy euh, defee yenn effet yi yëpp rek incha allahu rabbi benn par benn danañ leen ko leeral lu mu gën a leer ñu ngi leen sant di leen gërëm di wax ngeen gën a abonné te xam ne fii moom njariñ rek moo fiy génn incha allah jëm ci yéen jaa ngeen jëf